Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps tous les événements. asalaamaaleykum wa rahmatullah yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte di dalal Serigne Ahmadou baas fii ci Ansar TV. di bëgg ay leeral ci ben net li buñu bu faral di dégg moy daf bobu nga xamné dafa sifon khalibu xalé bu jigen ci jamonoy Lat Joor Jóob te ñu dajalé won borom xam-xam yi ñu defon ci atté bañ wax ñi sax sëriñ bi borom Tuuba addo won na ci ñu bëggoon ci ay leeral lool tax ñu dalaloon sëriñ Ahmadou bass Makka bass ngir sakku ci mom ay leeral yo xamné dañ ñu ko indil bismillah sëriñ bi الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وموالاه آه، جل جلس البشير وأمرنا بالزيارة دي ولم يتقوا الأنصار في النب يا رسول الله لهم توفيق نحن بابو نحن باب صلى الله مي جمعنا إلى الجوار فكم خالي بجير بو حمي فكم ضف بكو سيف سيجمنا أه. بابو في سيجمنا بابو Lat Joor dajale mbooleem borom xam-xam yi Kajooram jaamu yëpp mu dajale. Hmm. ñu maase àtte benn àtte bu dogu ne dox yoon topp ko. Hmm. dox yoon teewu ko dara loolu mooy li ñu miinoon a xam. Hmm. wax ci dem ba ëgsi ci Cheikh Ahmadou Bamba ci jamono joojee booy juróom si morom sëriñ mu ngi fi. sëriñ Tuubaa dégg wax ji ak na biir ma demee daan ne dox boobu koy yoon topp na wala sëñ Tuubaa wax waaye kàddu googu nag daal daal nañ siiw ba àgg pay hmm. ba mu àggee pay coow li bari lool ndax sëñ Tuubaa xam nañu ni bari na loolu muy juuyoo ak buur yi ci ay ak yi dëppoo ci gis ak ci bare bare hmm. tey daal ko sib la lu bare bare muy bàyyi ko ci ñoom waaye lu waral daal bu àtt ñëwee léeg mu àtt ca lu wuuteeg lañ façon wala lañ xamoon loolu xaw na leen lool loolu moo waral ñu ne faw ñu wax mu ñëw leeral loolu hmm. jaar ko ci ma ko rokk sëriñ bi wo juróom mu waxtaan ci ak mom sëriñ bi da muy di fofé ca kii hmm. waaye bi mu démé ba génn ba tëg man pays lu sore ñoom jataay bi mboro mi tok li ñuy bari bari amna ku ñu wax maam ma sekk ndóoye hmm. moo jël seen sëñ bi muy ñëw ci barab bu sori mu dal ne këri di ñëw mooy doomi si morante suñu di wax ne ndox mi yoon topp na ko waaye bu ñëwee fii dana mu wax daara jum jàngi loolu loolu la insha allah yaa ngi dégg kon nag ni bu njëkk ba am na tuuti wuuteeg nag bi bii dëgg la lay wax nag moo gën a wér waaye bi sëñ bi ñëwee bi mu nuyoo toog rek dafa wax ne bàyyi ma wax ne su ma wax daara at ne ndox mi yoon Hmm. ma lay xamal daara ji ma ko jàng di ba ma fa jëmee rajo ma kenn ku fa bawoo nekk naa ko bu jóge fa kenn fekkuma te ba ma fa bawoo yi rajo ma kenn ku fa jëm. skay maam ma sekk mbooyee ak jataay bi mboolem ñi nekk ñëpp jaaxle mu ne ko kon da ko ma sekk mbooyee kon da yaraw ñii. Hmm. buur ne fa dox bii de ñu yeewu dox ba ci mbooloo mi dox bii de. Hmm. moo gone gu jigéen ji. Hmm. gone gu jigéen ji doom bi kenn la woon ci bànq ci jamono jooju moo siif gone gu jigéen ji. Hmm. léegi nag kilifa yëpp liñ ci mooy dox bi yoon topp waaye sëñ Tuubaa diglu la mu nga mën cee jàngat bu bare baree bare ci xam-xamam waaye ak ñaw zakaaw wa ak ni sëñ maanaam. ñaw gi nga xam ne xelam ñëw na. Hmm. sëñ daa wax ne dox bi de. ba góor gu jigéen ji nekk ci kër gi ci nekk fam ñëpp hmm. su ko fa jiiman ñu ne day jëf ci dof dañuy wax ne hmm. waaye dofa nag waaye loolu ko sottee daa bàyyi ba mu dem ca tool ne fam ñëpp hmm. daa bàyyi ba ñëwoon ca jóge fa ba góor gu jigéen nga des fa mu daal koy siif waaye wax ko siifee itam fekk na ci moom juróom-ñeenti bën-bën. waaye bën-bën ba nit ñi dañuy jëfandikoo rek bën-bën boobee dañuy jëfandikoo. kon nag gannaaw boobee ba léegi nii gisuñu fenn fu mu def jëfi dof jëfi rek lay def damaa bëgg ñu teg ko attin nit ba saa yu jëfee jëfi dof ñu doon ko teg attin dof. dof bi ne bëri bëri ñu bëri ci mbooloo bi ni kii yee leen raw. <laughs> kii yee leen raw. <laughs> doofu ma dara dugg. bu dee ko jigéen ñi sama doomi ni yaay la dama cee dem di wuti lu ma ca def am ku gëna gën a xej gën maa jege tàbbal ci xabam ci fas ma yéene dakk ma déclarer ak ndox ñëw fii jëfandikoo ci moom lii jataay ba daal di tas <laughs> kon xoolal foofu kan bu suñu ba waaw ndeysaan ak acte bi ñaw gi nga ci la ko ba si acte boo xam acte bu dëpp ak acte islam bu loolu jaaxal na ñëpp yàlla dana leen <laughs> <laughs> euh, li nga wax leer na nañ waaye loolu jàngi nañ ci ne loolu sëriñ bi tontu rek euh, maam ma sekk ndoye moomu mm-hmm. looluy dëgg mm-hmm. xam naa loolu suñ borom moo ko ko xamal mm-hmm. moom la rewe woon ñëpp tubarkalla loolu moom mooy lu ñu yitteel dëgg-dëgg ci ci nettali bi waaye dégg naa nga tudd ci maam ma sekk ndooya mu mel ne euh, dafa bokkoon ak euh, maam Lat Joob ndooya lépp maam ma sekk ndooya moomu ndax mën nga nu ci leeral dara digganteem ak Lat Joor ak euh, digganteem ak sëriñ bi ci ab tënk rek ci Lat Joor Hmm. boo xam ne bu Lat Joor bëggee diisoo wala mu déeyoo moom la daan diisoo moom la daan déeyoo ci biir. Hmm. doy na sëkk ci seenu nawloo. Hmm. mooy Lat Joor na ko ndoom maam ma sekk mbooyu tuddi ko ndoom loolu moo leen boole woon muy kóllëre. macha allah koo xam ne. ndax daan diisoo moom ci mbir yi ak ci xew-xew yi. macha allah maanaam mooy ànd loolu Lat boo xam ne bu mbir xewee ñoom ñaar ñoo cee nas ci biir néeg yi fu kenn ci jóg. kooku mooy maam ma sekk mbooyu ku amoon wàccuwaay rek caatri bu njëkk ba tuuti nañ ko am dakk waaye du lu ab dakk ci mag ci leeral lu ab dakk waaye wëll la ci la jox kon loolu mat a leeral bu mat a bàyyi xel mat a dëgg la ñaaral bi diggante nag sëñ Touba sëñ Touba mas na koo romb mu toog yor sëñ bi ne naa ko ku ma ñu ne waaw mu ne ko bore gor su bore ngoo daal di wax ne mbañ gàcc ma sampoon sama diggante nit ñi day mooy ko ndax loolee mu ci jataay ba ci jamono ji may atte atte boobu. Mhm. su amaana bu wax la ma wax ba feeñee ci bañ xam si bañ xam si ma xam mooy bàyyi mu sëñ bi <laughs> bàyyi sëñ bi. Mm-hmm. Mm-hmm. wax ne maa jëkk feeñal wilaaya ak sëñ Tuubaa wax ci jotaay ba tax mu. wane wane uh-huh. su ma ko waxutoon amaa ba <laughs> uh-huh. fekk na ko ca xam naa. dëgg la. fa la ko joxe fasam mu tudd kóllëre fas wala joro ko joxoon. Hmm. mu tuddoo fas yu kóllëre fas wooye muy fas wu tedd mu jébbal mu Serigne mu bokk ci fas yi nga xam ne nii fas fas Serigne Touba fas maa ma la joro boobu. Hmm, hmm. kóllëre la woon waaye la <laughs> eh, lii eh, leer na nañ leer na nañ ñoo ngi lay jaajëfal bu baax serigne Ahmadou li la wax ne am nañ mbekté bu baax baax ci dag yitte yi ñew ngir leeral lu melni nii amon nañ yité lool ci bëgg mu leer waaye tuwarkàlla li ci leen moon leen moon rek leer na nañ yalla yalla fa ci yaajo ñoo ngi nuyu Ansar TV di leen jaajëfal bu baax yeen tam ci seen taxaway te ñaan suñu borom télé bi yàlla suñu borom boole ci télé yi gëna mak mu dem ba daj aduna ba ñukay koy fep fépp ngeen jëf asalaamaaleykum wa ñoo ngi ziyaare bu baax seeti maam ma sekk Ndoye yëpp ak seeti maam Lat Diop Ndoye yëpp jërë ngeen jëf. TV gaaw leen gaaw ngeen bës cloche bi su ko defee ngeen doon membre abonné di am en temps réel tous les événements